tey jii ñu ngi ci càppandaw bi nga xamante ne moom mooy campagne électorale bi pour les élections législatives ci zone ouest bi nga xam ne ci lañ nekk yàlla def ma doon euh, mandataire bi ànd ak euh, suñu coordonnatrice madame Binta Bass ak l'ensemble du comité électoral ñu dégoor ko ci bisimilah rahmaani rahim. te di ko terminer ci alhamdulilahi rabil alamin yàlla def muy campagne bu am solo bu nit ñi def ci jàmm ak ci salaam moom ñuy rafetlu aussi comportement bi Cees waa yëpp am muy ouverture muy bokk ndey bokk baay yàlla def ci biir campagne bi dañu daje daje nañu ak sunu ay adversaire mais ñooñu dañoo rafetal ñuy saafonte ree waxante di ñaan nag loolu nga xamante ne moom la ñu doxalee durant tout la campagne ñu continuer ko ba suba incha allah ñu daal di koy defee noonu lundi ku nekk delluwaat sa liggéey Thiès loolu la ñu xam te loolu la ñu mës a def. yàlla def na nag ñun suñu campagne ren dañ ko basé sur la proximité proximité moom mooy jël sunu tànk dugg ci biir kër yi waxtaan ak askan wi proximité boobu nag yàlla def na depuis le début am nañ ci ay réponses yu baax. parce que kër gu ñu dem ñu waxtaan leen enjeu wu élection yi ak importance bi nga xam ne élection yi am na ko ak bilan du président Macky Sall nit ñi wuyu nañ ci te loolu ñu rafetlu ko lool. di wax nag ne fi ñu jëm enjeu bi dafa am solo mooy enjeu de stabilité enjeu de paix te en paix ak stabilité boobu président la la République moom la soxla pour mën a terminer son mandat ci li nga xamante ne mooy réalisation yi mu war a def. réalisation yaatu na ci santé ci éducation ci équité sociale ak ci lépp président mi ngi ci te loolu nag ñun ñi nga xam ne ñoom bokk ci Benno Bokk Yaakaar dañ si ànd ak moom taxaw ci di wax ne que bii yoon tout le Benno Bokk Yaakaar sans exception dañoo bokk ndey bokk baay il n'y a pas eu de parallèle amul kenn ku dem ñun ñëpp dañu dellu si remercier l'ensemble des Euh, comment dirais-je des partis yi nga xamante ne ñoo constitué Benno bi réew mi au parti socialiste à la LD au PIT ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne AFP ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ci bokk ku juum mais ñooñu nga xam ne locomotive lañu ak waa ñeneen ñi nga xamante ne ñoo ñëw ànd ci waa Siggi jot na mouvement yi ñëpp ñëw bokk ndey bokk baay loolu moom mooy li nga xamante ne j'espère pour demain nous amener vers une victoire éclatante victoire boobu nag ñu ngi koy dénk dénk kenn rek lañ koy yéene kenn moo tax ñu koy xeex mooy le président Macky Sall di leen sant di leen gërëm wasalaam